technopole bi moo soppali ku nekk soos soos bu far ak soble bari ñeex ci kaw camion yaa ngi dem di suul mburu yi ci wet ga jógal ngóor dama ne dex ba soppali ku la nekk soos muy sama ndey yaay yooyu taj temps ndeey la i gamu lan la man kamoo lal lan la gamu yow satan laa wax eh Paul mooy saj laa wax man yow aan ka gujj Paul mooy maamu joob may mu mburu mi nga koy saj baaru joob ginaar ak nenem yëpp borom ginaar moo leen moom jaamu séeréer nga loo yor séeréer yee moom moo gamu gamu bay waaye ma i lu xew mu ne waaye lu xew waaye sama mburu la jëf ah, waaye ka la fel xaja waaye sama la oxone ka la fel ma ne toog lan mo la jël fekkam may nelaw mu sàcc sa mburu ah, war naa sàcc sa mburu ka ma ba ka gusa anda ye jab kiim eh o xone o xone ka dof xaja nit ñi bi eh. amul dara lu muy def lu dul yor mburu naaj bu tàng bi di ko lekk jabkiim o ndaala fo el kaaguge ke rek na fo ndege ka gusa gamu ati mburu fe gamu nag yow kuy tooñ nga nga xam nga ne séeréer ni mu buggee mburu nga bàyyi mburu bu tàng bi nga xam nga mu ngi xojom xojom yi nga koy jël di ko rombak ci koñ bi ah. kama ba yéen séeréer rek yéen a bugg mburu ñun pël yi nag dañoo bugg mburu comme yéen lii kaaj bi dem koy def sokola nga ne dam eh, eh. koy sokola oui eh? dégg nga dégg nga beneen kaaj bi ma petit pois. woy suma xam nga loolu soos la. da koy soos eh gamu yaa ngi koy soos nga. Ah, gamu andi mburu bi gamu andi mburu bi man sama mburu la laa wax. duma leen ko jox leen ko jox. loo ciy def nga ne. eh oh, ah. bàyyi ko mu dem yóbbul mburu mi maa ngi téye kayit bi yóbbul mburu mi ñu jël kayit bi. yow xaal pulaar bu xaal pulaar bu bon nga bu safar nga. yow gamu ko bon la. jegaan foonal. yaakaar naa ne bu ñu demee kër ga waxtaan dinañ am solution bu ñu mën a tënkee nañ dem waaw nañ dem yaakaaroo ne da koy soos waay mok eh da koy soos eh, eh da koy chocolat waay déedéet da koy soos moo yel moom da koy chocolat eh mooy da koy soos eh, eh da koy chocolat waaw eh. man kay fii laa tëkkee yow kay am nga. toogal ni ma ma ma toogal ni macha allah. yow kay am nga. jërëjëf. Maguette na sax na. ah Maguette ndol ndol. ndol ndol fene pambambe ke pambambe ni ko ko Jérôme Tine Jérôme Tine sant ji waaw i Jérôme sama sama nijaay la bismillah sama bay ak baayu Jérôme Tine ñoo bokk benn barafe moo tax ñu may woowee ci kan ndol ndol wéele yaa digge baax kay bismillah yow séeréer yëpp benn na di ah, séeréer yëpp xam nga pol bi daf ma merloo mm-hmm. pol bi daf ma merloo mm-hmm. waaye roog seen mm-hmm. war naa wax ak moom yàlla moom rek la mun a sant ah seen la sant eh moom mu ma wóorlu maa ngi woor ba heure bi mu seetaan ma du ah. ma jox sax lu ma doog bu heure bi jotee damay son son son son son bay bugg a dee fi mu ne sax lu ma bëgg bëgg bëgg ba bëgg ko uh-huh. muy bay koor bi déet déet déet déet waaye déet waaye yooyu tay ma bay koor bi waaye wax loolu mm. gis nga séeréer dëgg du jamat dëgg la séeréer pire mm. du jamat nga séeréer jom nañ koo xamee fu la ak liggéey tuta la loxoom di ñaan ñaqam rek lay jëriñu ak amul benn séeréer bu ñàkk jom yaa ngi may dégg bëggoon naa bàyyi koor gi sax waaye dinaa wóor. déedéet ko na nga wóor. dootuma ngoon nag bu jotee. gareer si tey. waaw fii waa gareer si. Eh. waaw booy nga indaale dara rek. loo xam ne dañ ko ci boole rek. jërëjëf te bu defoon mbiru koor bi nag. ndeyam. eh nde eh, bu yónni waaye jaaw nu. <laughs> Eh, ak muus xool fi mu génne. ko nii ak tey. <laughs> ndogul ba mu neex. baax na. fu ma dal baax jot ko jot ko. salaamaaleykum aleykum salaam mbaɗɗon tan kono ino mbaɗɗon tan mbar jam bon alhamdulillahi man de séeréer yi ñoo buggoon jël sama mburu man leen mukk karanma dem kër kaaw ibra mu ndogoo fof eh, eh, looloo tax ma ñëw dar am dar hay dar mi nekku fii de nga ma man maa ngi toog fii man kara sax fu ma war a jaar et timis bu jotee da ngay toog dog timis baakul yaa ngi eh, lenn ah jé yàlla indi naa kay. kana kay ñu gor gaal ñu takk ne. Eh, hay dara alaka. ah mi jogi nga jogi ah jogi an ka jogi. Eh, min kay o kay bi kay ah, kay xooloo ko def foofu ñu fi Diallo argay oɗo woni Allah waɗa jam gis nga yàlla yow bu fekkee da nga fen rek yàlla mu tiiña la mu weer la. waaye jegaan kay yow. waaye ma ngóor loo indaale. ngóor loo indaale. lii laa indaale. ngóor loo indaale. lii laa indaale. ngóor loo indaale. mais lii laa indaale. ngóor loo indaale. lii laa indaale. ngóor loo kabaay. bis. wala gerte jaar. ak li ma la xaar yëpp lii nga mujj indi. eh waaye ñàkk doole rek jegaan. tegal ne li. fan ci mburu kii tegal fële teg ko fële kay waay léegi nag waaw gemal gomu naa gemal bu baax gomu naa kay xippi ak ca lii soos la lii soos la lii soos la nga gën koo neex mu gën la niin lii soos la dañ koy soos wala. mukk dañ koy capp teen. Eh, dañ koy soos déedéet waaye dañ koy capp teen. Eh, dañuy soos wala déedéet waaye dañ koy capp teen. mukk dañuy soos wala déedéet dañ koy capp teen. kon dañuy soos wala déedéet waaye dañuy capp teen. Eh, dañuy capp teen waaye dañuy capp teen. séeréer ak soos. séeréer di taxale. ay ca bisimilah. wagal mu waaju. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Eh, kono woni. Eh, kono woni kala. Eh, eh, cepp sama. Wadni wa eh. Aga ah, wadni. Eh. Sama paaka moo réer dogal nga ma sama paaka bi réer. fii da fi toog ba ba ci paaka yow. Waay fii laa ko waddal si paaka bi nga naan paaka bu tànn nga ñongo jara suma tappi nga kiri bi kanam sama kër fël suma mbaxan ko sonam eh, eh. am na saabit bu nekk baal ma may la ko nga dem sa yoon ko baadoo la waay paaka yow takk yàq suma kër on na mot boo ko demee yóbbu ko mën ko jëfandikoo foofu. hisaabu takku yëkkam. en tout cas li sama li hisaabu sama ka. yàlla lay dabbaate. yaa ngi gis ba dara bi. yàlla lay yàlla na seet. ndey ami ku la yàkkal sa bàjjan. adu kaali sa adu. lan nga waxoon. Hmm? da ngaa waxoon fii amul ndox. yow loo waxoon yorul dara dañaa ne ay dara. jógaa ki même dañaa ndox. di ngeen def nii gàcce du leen rek.